ci maanaam euh, parrainage lañu yaakaaroon ci la dem waaye ñu bëri dañu dem dem la nga mujj euh, ci parrainage parlementaire yi mm-hmm. yéen gi ne la nga xam waxoon nañ ko ak li jëfe si diamétralement opposé noonu la ko yéen gi wàl fa côté ña xëy fësale euh, lu fës ci l'observateur

Euh, ci euh, dafa jël kàddu gi daal koy jox pam Moussa Saliou Guèye Pape Moussa Saliou Guèye <laughs> nag yëkkati na ay kàddoom daal di wax na ne diggi Sonko mën naa bokk élection présidentielle noonu la ko yéen gi xëy fësale nee lépp loo xam ne dossier la te waa conseil constitution di ko laaj Ousmane Sonko ñeme ko mhm. euh, ba sax euh, attestation euh, de versement bi nga xam ne nii waa CDC war na koy joxo donte la sax ñoom ñi di administration ñu koy jox attestation boobule mhm. waaye quittance bi war na ab caution noonu la ko yéen kay gi xëy fësale léegi soit ci génn àdduna Ibrahima Seye ah, bokk ci magi Pastef mhm. yéen kay laag ma ngay ñëw dañu xam dëgg-dëgg moom mi di Ibrahima Seye naka la faatoo noonu la ko yéen gi source à xëy mu ngoog euh, bu ñu demee ci bés bi bés bi le journal mhm. dafa xëy dellu siwaat ci ëpp Macky Sall mi ne jamono ji mënees na koy méngaleel kii di Léopold Sédar Senghor mhm. parce que président Senghor moom kese moo fi amoon jot tàggatoo waaw Euh, bu weesoo loolu amul beneen président boo xam ne jot nga tàggoog sa pop tàggatoog sa peuple mhm. kon mel ni kon aussi di euh, kii di euh, Macky Sall jamono ji mu ngi ci tànk yi tàggatoo mhm. noonu la ko yéene kaay gii di bés bi le journal xëy fësal Abdoulaye Seydina Omar Ba Vox Populi Vox Populi yaakaar naa dafa xëy daal mhm. maître Sidiki Kaba moom mu ngi yëkk ay kàddoom di wax ne ne administration bu Sénégal pare nañu ngir élection présidentielle yi ñëw lépp daal loo xam ne ay matukaay daañu ko jël ngir élection yi jaar ci yoon du am lenn lu ñu ci mën a jita laam-laame noonu la ko yéenekaay gi euh, di euh, vox populi xëy fesale mu doon ay kàddu yoo xam ne ñu ko nangoon ci kii di Sidiki Kaba nangoog euh, le mandat le mandat aussi ci loolu xëy dellu siwaat mm-hmm. le mandat yéenekaay dafa xëyee dellu siwaat ci église bi mm-hmm. église nag Abdoulaye yëkkati na seen kàddu daal di wax di pap bi décision mu jëlee dañuy yoon yoonal ak góor jigéen moom ànduñu si ñoom ànduñu si mhm. monseigneur Bézam nag becc na ab communiqué wax ni ne muy Sénégal daanaka réew yu si bari ànduñu ci décision boobu nga xam pape bi jël na ko mhm. noonu la ko yéen kaay gi la mandat xëy fëstale la mandat tamit xëy dellu soit euh, ci maître Moussa Diop bi nga xam neexul ba neexul waaye euh, casquette politique bokk na ci li ko trahir mhm. bind na nag ab bataaxal di sàkku ci ordre des ngir ñu wax ci jàpp gi ñu ko jàpp waaye loolu mënoon naa nekk su fekkonte ne maître Moussa Diop dugaloon ci politique bi mhm. waaye ndem la mu wax dama la doon wax ci politique la ko waxee mhm. euh, euh, yooyu wax la ko yéen kaay gi di la mandat xëy fis la euh, Sud Quotidien moom ko ci at mi at mi passé boo gaar accident yu bari nga xam ne mee ko nañ ko ci politique bi mhm. wax aussi ci dossier politico judiciaire yi nga xam am na fi mm-hmm. wax tamit ci jafe-jafe yi nga xam askan ñu ngi ko dund ci wàllu komo ak yeneen yu ni mel mm-hmm. daanaka daal jël nañ kàddu gi daal di koy jox Jean Charles mm-hmm. xalaatam jëmale ko bi nga xam Sénégal jot nañ ko dund ci at bi passé noonu la ko yéene kaay gi di le Fox euh, di Sud Quotidien xëy fësale ma ngoog euh, libération libération yéene kaay dafa xëyee dellu si waat ci mbir yi kër kër yërmande yéene kaay gi ne kër yërmande boo ko taxoon <laughs> waaw ak ñi nga xam ne ay góoram lañu. Mm-hmm. doon jàppale ci liggéey ba ñoom ñëpp daal fu mu toll yoon caabi féete leen ginnaaw mm-hmm. ña doon yar xale yi nag di nunu ya ñoom mujj mm-hmm. lañ leen ko placé sous contrôle judiciaire yéen kaay ci loolu xëy Faisal Abdoulaye na lool Seydina Omar ba bu ñu demee ci le public le public dafa xëyee moom it am ab rétrospective jëmale ko ci wàllum mbëkk mi ak ak ci wàllu Sénélec waaw Sénélec nee na Sénélec daanaka Euh, at mi at la moo xam ne nii. Mhm. Euh, li leen desewul rek mooy jàpp sénégalais ñaar di <laughs> waaye lépp loo xam ne ay jafe-jafe la ci ñàkkum courant. Mhm. ba ci euh, facture bu seer. waaw Sénélec teg na ko askan wi noonu la ko yéen kaay gi del public xëy fësale. na ngoog fës na le quotidien. le quotidien yéen kaay dafa xëyee dellu si waatoon ci sénégalais yi nga xam ne neexul ba neexul waaye. dañuy dem rek waaye lekkuñu ba suur. Mhm. Sénégal léegi dund bi ñu dund jamono ji mënees na ko mel ne dund gu yàlla dem na sax ba joxe chiffre njaboot yi nga xam ne jamono ji mhm. pour ñu mën a ak matal añ ak reer lu jafe la tax yéen kaay gi ku la ko tëjee a tey ji daal ci amoon ab ah, si bari waaw bu fekkente ne am na si ñoo xam ne liggéeyal réew meneen tax a jóg waaye am ne si ñoo xam daanaka bës mu ngoneen ut ut ak utum koppar mhm. waaye yéen kaay gi nag dara waralu ko nag lu may coow yi nga xam daanaka ñu ngi koy nemmeeku ci coalition yu mag yi mais lu ci mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi ak yeneen mm-hmm. fantasi gi faral di am ci seen biir moo tax gars yi di ngembu mm-hmm. maanaam di mer di ngembu loolu bokk na ci li waral candidat yu bari yi noonu la ko yéene kaay gi di euh, l'enquête xëy fësal euh, critique lam ñu jukkil waaw critique aussi moom it euh, daanaka ci loolu la xëy dafa xëyee moom it amal ab mm-hmm. ab ab kii rétrospective aussi ci at mi Euh, dellu si ci euh, mbëkk mi. mbëkk mi li nga xam jot na ñàkk ci ay. li fi jot ay ñàkk doomu aadama yi fi jot a ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. ak it la xam ci la xew ci pouponnière bu Ndella mm-hmm. Madior Diouf. yéen a kaay ngay tiri ci loxo yi fësal Abdoulaye. ngoog euh, lum ñu dikkee réew mi quotidien. waaw réew mi yéen kaay dafa xëy dellu si ci kàddu yi nga xam ne Maître Sidiki Kaba yëkkati na ko jëm ci élection présidentielle yi ñëw. ma ngay waat na mu ngay kitaabu ne lépp loo xam ne ni muy soxal administration. Mm-hmm. daañ ko jaarale ci yoon maanaam daañu ko organiser ba lenn lu ñu laam-laame du ci am. noonu la ko mel mm-hmm. si dikk ba waxee ci yéenekaay gi di réew mi. donc euh, la xëy dellu si waat ah. moom xëy dellu si waat ci problème mu Ndella Madior Diouf. waaw ñu ne jamono ji teg nañ ko loxo moom ak ay góoram. noonu mm-hmm. ya jamono ji dañ leen classe classe sous contrôle judiciaire noonu kay yéenekaay gi xëy fësale. Mm-hmm. yéenekaay gi tamit dellu si waat ci la nga xam moo aju ci wàllu drogue bi. waaw na ci réew mi. yéenekaay nag nee na ab link la bu dox ci diggante libanais yi ak portugais yi ah. ak espagnol yi moo tax nag fu mu toll nii gars yi ubbi na ci ab lankeet ngir teg loxo ñi nga xam ñoo fi dugal drogue bi noonu la ko yéen kaay gii di les échos xëy fi donc euh, turbine moom waaw turbine yéen kaay dafa xëy dellu si waat ci tirage au sort bi nga xam war na koy amal ni ki tey ji ah. ngir tànn eh, ñi nga xam ñoo war a jiitu ci parrainage bi lee yéen kaay gi nag lii nag tànneef gu njëkk la laataa ñoo àgg ci élection présidentielle yi di ñëw noonu la ko yéen kaay gii di la turbine xëy fesal Abdoulaye euh, fës na ci l'info l'info aussi yéen kaay ci loolu xëy dellu si waat mm-hmm. yéen kaay gii di l'info tamit ci loolu xëy dellu si waat waaw Euh, yaakaar naa moom ci loo xëy. waaw ci wàllu politique ci wàllu politique boobu. Mangog bu dee Le Soleil. Le Soleil yéen kay dafa xëy dellu si waat ci saar. Mm-hmm. bi mu ne jamono ji neexul ba neexul waaye ñu ngi pompé ak doole ah. waaw yéen gi moo xëy fësal lu ni mel nee na ñu ngi jóge ci benn million ak ñaar ci ci ci ay ci ci baril. léegi fu mu toll ngi toll ci benn million ak juróom ci ay ci ton baril. Mhm. pétrole brut boo xam ne ñu koy pompé at mu ne. Mhm. yéen kaay gi nañ ne ne seen objectif mooy fexe ba àgg ci ñett jàpp juróom million ak lu teg ci tonne par an noonu la ko yéen kaay gii de la soleil xëy fësale. bu ñu demee ci stade. stade yéen kaay dafa xëy dellu si ci Aliou Cissé. Mhm. mi nga xam ne jamono ji mu nga am tiitaange ah dafay ragal la daloon Sadio Mané daal ko mhm. dalaat ko ci ci ci d'Afrique bi mais lu ci mën tam moom Aliou Cissé ni ki tey ci la fas yéene fesal tuy ñaar fukki jour ak juróom-ñaar yi nga xam ne nii ñoom la fas ci Coupe d'Afrique des Nations bi léegi record ma nga woon ca Coupe d'Afrique waaw ci loolu xëy dellu waat mhm. wax te tey ji la ñu fas yéene fesal mhm. ci eh, ci Coupe d'Afrique des Nations bi Sénégal war a jouer euh, fële ci Côte lu suñu lamb open